alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawi nawali alwali wa radiyallahu an shaykhina wa wasilatina ila rabbina ahmad ibni muhammad ibni habibillah khadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam summa ma baad asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki taalibe yi teew ci jotaay bi ak mbooleem kilifa yi nga xamante ne ñu ngi teewee jotaay bu màgg bu sell bi ak mbooleem bokki jullit yi ak fu ñu mën a nekk te di ñu topp ci jokkalekaay yi ñu ngi yëkkati am nuyoo fii ci urumi yi Tuubaa ju mag ji di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di am mbégte bu wér a moo xam ne mënee su ko natt wala ñu koy tudd ci ay baat ngir yàlla sunu boroom mi nga xamante ne ci tawféexam lañu ñu tawféexalee ñu fekkewaat weer wu màgg wii nga xamante ne ci la bis bu tedd boobu nga xam ne sëñ bu mag bi digal nañu ci ndigal lu rëy loo xam ne sunu njariñ la ñun ñëpp. ñu koy waajal ay ci ay anam yu bari bokk ca waajal yooya nag yi nga xamante ne waa daa daaira muxaddamatul xidma bi nga xamante ne seen yitte yëpp dañ ko jooyal jëmale ko ci barab bi nga xam ne moom la murid yëpp bokk muy jumaay suñ tubaa ju mag ji nga xam ne moo nekk fii Tuubaa bokk ci ni ñu waajalee nag bis bu mag boobu ngir jëmmal ndigalal sëriñ bu mag bi di ci def ay jotaay jotaay waxtaan yoo xamante ne dañ ci woo ay woroomi xam-xam yoo xamante ne seeni xam-xam yu mucc ayib bu mucc ayib la jox leen ay tomb yoo xamante ne dañuy ñëw nafar ko ak bokk yi nga xamante ne ñoo am yéene yi xam sëriñ bi ci ni mu gën a dëppoog ni nga xamante ne moom noonu la ko jàngalee noonu la wanee boppam jotaay yooyu nag dañ caa tànn ab jotaay bu gën a yaatu boo xam ne ci ñi war a teewee jotaay ba dañ ko yaatal ba ñi nga xamante ne ñoom lañu ñu séqal liggéey bi te mooy yeneen banqaas yi nga xam ne dañuy liggéeyal sëriñ bu mag bi te di ko jaare ñoom it ci yeneen i kuréel yu ne ci dëkk bi ñu leen di woo ñu ñëw seede ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy amal yenn kilifa yi nga xam ne dañoo ne ci dëkk bi itam te mën a teew ñu yónnee leen ay bataaxal ngir ñu teewee ci liggéey bi itam ñoom it ngir seede ko jotaay boobu nag am solo googu muy am solo day tax ñu koy wutal saa yu nekk tomb boo xam ne day yitteel ñépp donte ne mën naa nuru lu ñu wax ay yoon waaye saa yu nekk day yitteel ndax day loo xamante ne wax ko ci benn jataay lépp jeex daa yombut moo tax eh, ñu tànn tomb bu waxtaane jëmmi sëriñ bu mag bi ak nekk gi mu nekkoon gànnaar ak ñam fa doon jëflanteek nam doon jëflanteek ñoom yëm seq ak ñoom ci ay jëflante loola moom lañu bëgg nafaraat tey jàngat ci bind yu bees tàq war ko ànd ak nag cheikhul xaadi cheikh Mouhamadul Mourtada Bousso al imam mi nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko xam ngeen ko ci anam yu bari xam ngeen ko ci ni mu bokkee ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi waajuram nekkoon koo xam ne moom moo doon jiite jumaa yi Sëriñ Tuubaa ju mag ji fii mu togg di waxtaan di wax ci diine waaye itam ñëpp xam ko ci wàllu tasaare xam-xam ak jàngale ko yemalewu ko rek ci ñi teew ay jotaayam di teew ci ay penkam mu leen jàngal waaye ci mbooleem euh, xaray layu bees yi dafay jaarale ay jàngale di ko fa jàngale loolu itam boole na ci ab yëngu boo xamante ne ñëpp gis nañ ne jëmmi Tuubaa ci jëm boppam saa di gis ne moom mooy ki nga xamante ne moom mooy nekk xam sa ko koo xamante ne moom foofa la jàngee bokk ca ñoom te ñoom ñu bokk ci sëñ bi kon buñ ko joxee waxtaan woowu lam dund foofa gis ko xam ko da koy mën a wax boole ko la nga xamante ne da koo yër feneen bu ko boolee dañuy mën a jox bind bu am solo boo xam ne ne ñun ñëpp danañ mën a delluwaat xumaat xam la xewoon gànnaar ak na fa sëñ bi nekkee woon ak ñen ko doon jëflanteel insha allah kon buñ ko teewloo ñun ñëpp danañ bokk jariñoo mbooleem li nga xamante ne nar na koo sotti ci ay ci ci ci waxtaan bi te mu aju ci sëñ bi nekk gam nekkoon gànnaar ak ñam fa jëflanteel ak lam jëflante ñoom jëflante booba fan la mu toll ak lan la jur loolu yëpp buñ toppee Seex Mouhamadou Mourtada dinañ ko xamee ci waxtaan bi kon dañ koy jébbal kàddu gi di ko ñaan suñu borom mu feccaw làmmiñam gën a leeral ak dëndam ba li mu bëgg a leeral mu leeral ko ni mu gën a jotee ñun ñu koy diglu itam ñu jariñoo Seex Mouhamadou Mourtada bismillah bismillaahi rahmaani rahiim bismillaah bismillaah bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu alaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin nabiyil ummiyyi wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallim ñoo ngi nuyu jotaay bu tedd bii yépp ak jotaay yi ni mel nga xam ne dañ koy waajale bis bii ñu jëm si jublu si te muy dëppoo ak ndigalul sëñ Touba muy màggalu Touba atum julli bi nga xam ne kon day ma ne niru nañ loolu mooy weer wee moo jiitu weer wi moo ci topp waaye noonu rek la loo xam ñoo niroo loolu kon li leen boole bari na dana gën a seen biir euh, lu leen niróole it bari na bokk na ci bis benn la mooy bis bi nga xam ne ci la fi sëñ bi jóge woon di dem ci géej gi daanaka rek mooy samedi ba léegi nga xam ne moom la fi jógee jëm ci jéeri ji muy jëm gànnaar mooy samedi yooyu nga xam ne la fi xëye woon jëm daaru marnaan lu leen niroo bari kon bi sëñ bi ñibbisee ci sababu zaahir ci nga xam ne moo ko fi tax a dem euh, mooy rek tuuma yi gën naa bari euh, wax yi bari dama ko dikk waaye li leen naqari dëgg dëgg ci moom rek mooy li nga xam ne noonu la sëñ bi meloon yàlla melal ko ni nit ñaa ngi koy topp dégg bëccëg rëgalu leen bàyyiwu leen xel kenn mën mënta dox digganteem ak boromam li mu bëgg a def it loolu rek daanaka moo leen naqari boole ci nag li nga xam ne moo baaxoo am ci àdduna ndax xam ngeen ne wax ne kullu zi ni'matin mahmud képp koo xam ne maxsuud képp koo xam ne yàlla da laa xéewale rek noonu la la yàlla di tàggatale mbooloo mu bare bare ñu la iñaane moo tax jaxase yooyu am na ci façon bu bari bu wutee ñu tàmbali bindanteeg moom wan ko ne ko de ñibbi si nga jóge nga ci géej gi waaye nag bàyyi wu nga doon def wax yi dem dem ak dikk bindante di waxante ba yàlla dogal rek li nga xamante ni mujj na ci xew mooy ñu ànd dem ba ñuy génnewaat ko ci yóbbu jëme ko ci géej gi loolu yàgg lool woo ñu ba nee nañ li ci gën a fës xam ngeen ne sëñ bi bi mu jógee ci géej gi ba ñëw ba sañc daaru salaam ginnaaw bi ba nekk daaru marnaan xam ngeen ne am na lakk bu musa am ci kër sëñ bi googu sëñ bi defarlu na ko defarluwaat na kër gi defarloo woon ko maam Thierno Ibrahima nee nañ bokk na ci waajtaay yu ñu doon jëme ci kër ga mooy yu fa war a jëm bagage yi jëm ci biir kër lal yeeg yi mel ca sëñ ku mel ni sëñ Bandoumbe wala ak maam Thierno ñenn ñi di ci boolee maam Cheikh Ibrahima Fall doon ko waajal biñ gisee ñu jëndee ji ko ci dëkki taax yi defe naa tëngeej la woon di ko indi defe naa yàpp ko ci ay gileem ak ay fas ak yu mel noonu am na ku leen gis nekkat gis na ne ay ngànnaay yàpp nañ ko yu bëree bëri yoo xamante ni te sëñ bi la jëm muy fi sëñ bi nekkoon jamono jooju daaw marnaan day mën na sabab yi bëri na waaye moom bokk na tax na bañ gën cee fes bindante tàmbali bindante nañu sëñ bi ay yoon woo léeg-léegi ci gën a bëri xam ngeen ne du dem wax yu bëree bëree bëri am ci yemuñ ci loolu bindante nañ ak koo xamante ni kilifa la woon lool booba ci gox bi muy Cheikh Sidiya Baba di doomi Cheikh Sidiya Mouhamad moom Cheikh Sidiya al Kabir leeral ko sëñ bi doxinam ak leen naqari ci moom sëñ bi waxuma la bindul sëñ Tuubaa waaye nag yemle si la ci moom ndaw wo bind ko ndeysaan leetar yu daw yaram xamal ko ne ko rek bu ma sañoon de bëgguma gaa yi jëndewaat la fi ndax wan ko rek ñàkk solo noonu yi wan ko nekk ko seeni pexe wax ko lu bare bare bare bare àgg naa ak sëñ bi ci ne ko sax de wax ji ma lay wax de xam naa ne gêné na la waaye ñàkk pexe tax moo ko la ko ak ñewant la ndax xam naa borom gaay wax ko lum xam àgg na sax ci ne ko yàlla lim la wan ci baatin ba tax nga ñeme fit bi nga am bàyyil xel ne mënees na ko taawil mooy rek waaye nag Cheikh Sidi waxi borom xam-xam la ko wax ak waxi rek lim ko bëgg a wax waaye nag ngeen xam ne yéeneem moom mooy bañ sëñ bi génnaat rek ndax xam na ne bari nañu jaaroon foofu jël siwaat waaye day mel ni sëñ bi moom lim ngànkoon bàyyi ko mooy dong da koo gën a am am na ci leetar bu daw yaram bu Cheikh Sidiya bindee wax ko sëñ bi tontu rek mooy du ma wax lenn la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa hasbunallah wa ni'mal ak cofeel bi ci loolu mi ngi continuer bindante ak tubaab bi layal na ko wax ci lu bare bare bare gis naa leetar bu xorom tubaab yi li liñ ko tontu ci suuf mooy Ahmadou Bamba mi nga xamoon di ko protégé bokkut ak Ahmadou Bamba mii xay na ba nga koy xam sab taalibe la woon waaye nag Ahmadou Bamba mii ma gis de nekkatut sab taalibe bàyyil xel ne yi nga koy waxal xëy bu nekkee ci waaye bu nekkut ci moom mooy wan ko ne ko daal fipp la faale wuñu te li mu bëgg rek mooy attaqué ñu li bëgg rek mooy déstabiliser li nga xamante ni mooy sécurité publique wax ko wax ñu xaw a tàng Cheikh Sidiye tubaab bi xam moom junj ko ne jéem bu ko mënatut a ñàkk wax nañ ko nee nañ proposé nañ ko fu baree bari gis naa ko seen bind yi am na ci réew yoo xam ne sax moo gën a sori Gabon foofu lu baree bari waaye rek alaa kulli xaal dëppoo naa ñoom ci ne bu fekkee mënu leen koo jàpp ngeen ne mënta bàyyi liñ nekkoon ca génne bu mënta ñàkk maa ngi ñaan nañ ko indi foo xam ne dana ma jege ca it man maay ki nga xamante ni nag maa koy garanté. ak it ay propositions yu mu ci dolli mooy na ñëw na ànd ak nangam ak nangam na def nangam. mooy daal na ñëwee ci condition yi ak yii lu mën a xew tubaab yi bàyyiwuñ wuñ dañ nekkoon waaj nañ ngir ñëw songu sëñ bi ci daaru marnaan xam ngeen ak la fa xewoon lépp ci la sëñ bi taalife woon xasidaam gu siiw googu rabbi bi maa yasraxul azhaana qad fa jaa bi jaahi afdali man lillaahi qad la jaa ci la demee banaan yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamii al wara yaa haadiyan radaa mooy yow yàlla yow mi nga xam ne yaa gën a màgg ba doo xawat doo def xawat doo fayantoo doo def xisaas ndax boobu tooñ nañ ko xotti nañ per yi bënn nañ yenn gaal yi def nañ lu bare bari ne ko maa ngi lay ñaan nga yërëm mbindeef yëpp xam ngeen ne liñ wax kon ñoom liñ def ak liñ ko wax wuute na waaye nag li ci am solo mooy bi sëñ bi amee ndigalul yàlla rek ci la fa jógee moo tax sax li gën a wér bi jour boobu nga xam ne ci la fa noon yi doon ñëw ba def noonu kër ga yàlla dogal na fekkoon na dañoo juyaloo ak sëñ bi day mal na rek kon ak yoonu Mbàkke baare wi li amoon fee rek benn la niroo nañ lool day mel na ñaari yoon yi noonu la niroo lu mën a xew sëñ bi am na ndigal ci seen boroom dem na xëy na daaru mar naan xëy mu metti mu metti woon lool ay mbokkam metti woon lool ay taalibeem metti ñëpp lool ndax sëñ bi at yi booba yokk na jëm na mag tukki bee metti na lool yàgg na fa ndeysaan ñu ci bare bare ñaaw nañ njort ci ne de bu génnaatee de mën naa am du ñëwaat moo tax lu méttee méttee méttee métti la ba ci tubaab yi sax noonu lañ ko xamee woon xam nañ nen métti woon na ñu bare na ci ñoo xam ne daanañu wax ne de ci ñoom xam nañ ne de génn ko dana jafe ndax ay bokkam de li wér ci moom am na sax ñu ci cité magam Mamour Diarra booba ne gis nañ ne liñ waxtaanee ci seen waxtaanu biir mooy génn sëñ bi moom seen kaw ngay jaar wala doo ko def te booba ñoom ñeewante sëñ bi waaye lu mën a xew sëñ bi génn na daaru mar naan fi mu jaar si ngeen booba ci la jaare ndaam foofa tey fii sëñ Moutou laa def jàkka jumaa ji doon tey continuer jaar na ngaabu fi mu jaar fépp ba dem njaareem jaar tuubaatul noonu la continuer dem ba ndar xam ngeen ne faaw mu dem gisante gouverneur euh, kilifa ga fa nekkoon kilifa tubaab bi mi ngi ànd ak ndawul li Cheikh Sidé yabaloon jamono jooja ñu koy wooye Cheikh naa ibnu Dadda mbokkam mu jege la doomam sax mi ngi dund ak keneen ku ñu àndaloon ñu ko daan wax Mouhamad Sidiya biñ demee gisante nañu gouverneur bi waaye rek solution amut mooy ñoom daal xamal nañ ko ne génn mënta ñàkk génnewaat la ndax soppiku ci ni nga meloon waaye nag boobu yoon yàlla dogal na lu yéemu nar cee am mooy génn nañ ko ngir suufeel ko génn nañ ko ngir soril ko ak njabootam waaye day mal ne dañ koo nar yóbbu ci suuf si nga xam ne ci fi ko gënal lay doon ci suuf si nga xam ne ay soppeem ñoo fa nekk cent pour cent mooy foo xam ne kenn du ko fa wàññi suuf moo tax ñaari kii yi wuute ala kulli loolu moo ko fi jëlee ànd ak ñaari ndaw yooyu li ma leen wax ne ñaari tukki yi dañoo niroo am na lu amoon ci tukki gabon bi dangeen koy dégg bi sëñ bi dem ci xëyee Mbàkke yi bi mu àggee Louga ci gaar bi bay war a dem kenn ci mag ñenn ci mag ñi mu àndaloon daanañ ci tudd sëñ Baara Xarifaal daanañ ci tudd sëñ Baara Faati Mbooj mag ñu baax lañu woon daanañ ci tudd sëñ Mad Lamin Gay euh, sëñ Maxtaar Xarijang daanañ wax ne bokk nañ ci ñu yoroon bagage yi tubaab bi dañ leen a dugal ci benn wago ñu demee ba sëñ bi départ rek des si ñu long ci wago wago des fa loolu bi mu dem ci yoonu géej gi nga xam nga lu metti la woon ñoom ñu yanu bagage yi di daw nga xam bi ñoo àggandoo ndar <coughs> muy lu metti waaye lu xaw naa am ci keroog gàn bi mu dem gànnaar bi mu dem ak ñi mu war a àndal ñu war ko jàppale ci bagage yi bi mu yéegee xam naa loo colo xëy na loo co yu ndaw yi ak Cheikh na ibnu Dadda ñu mooy ñu jóge Murtani ca war ko yóbbu bi donga yi demee ba nar a yéeg dañoo dañu leen a dugguñ daal lu ci mën a xew mooy dañoo lonki looco bi rek mu départ wuti dagana nga xam ne loolu bokk na ci li tegtale ci niroo ñaari tukki yi waaye donga yi def na ñee defoon rek topp yoon wi xam ne ñu sëñ bi dana escale ndax ci yoonu suuf la jaar moo tax ñi ci gën a bari dagana lañ ko fekk yàlla dogal ñaari yoon yi wuute lool dagana ñu teertu ko fa teertu bu xumb xumb fa la nekk diir ba mu fa nekk lu jege juróomi fan ba nim jegee dem diggante booba la xew bari na lool xam ngeen sëñ Mat Lamin Jóob Dagana mi danay nettali ne gone la booba waaye yónni nañ ko fa ak yeneen ak yeneen yi fa xew mooy ñu baree bari fekk nañ ko fa xam ngeen ne am na kilifa yu mag yoo xam ne mos nañoo nekk ci ñu ngi ci gaaya sëñ Mouhamad Salif Sow ak rakkam ñu baax ñooñu seen waajur foofa la jaayante woon ak sëñ bi ñooñu ay boroom xam-xam lañ ndeysaan xam naa seen njaboot ba léegi ak ñu baree bari waaye foofa la sëñ bi jegee di dem bi muy ngir bëggoon mu ànd ak mu kàllaf bëggoon mu ànd ak kenn ku ko mën a jàppale ci bagaas yi ak it taxawu ko ndax booba lu la waaye mën a wax ñëpp ñeewante nañ sëñ bi génn génnaatam métti na ci ñoom waaye rek teewut dañ ne kenn rek la àndal bi mu jéggi sunu maam ju baax jooju sëñ ma jaw paxa donte nag gànnaar wuute na ndax ba mu demee bàgg ñu baree baree bari fekk nañ ko fa loolu mooy sababu zahir si sababu baatin bi kenn du ko taawil kenn du ci wax dara sëñ Touba moo ñu ko leeralal moo ko waxal boppam moo ne yàlla du ko yóbbu ci tukkib géej gi muy Gabon ak li ci aju ngir nattu ko yóbbu ko gànnaar muy tukkib jéeri ji ngir fay ko kon moom xam ngeen ne nag ñaar yooyu wuute na fu ñu lay fitnaale di la fa nattu ak fu ñu lay terale kon wuute na loolu mooy différence su Gabon ak gànnaar sëñ bi moo wax ne man zanna sayri ghibba aami atsasin misla masiri rasa aami jaysasin sabata kawnuhu jahulan ghumra bal huwa tatyibul ali lil umra lam yaku sayru aksasin siwa jaza man li yaqaada baadu waxdan najaza kon day mel ne sababu baatin bi jërut sori mooy sëñ bi moo ko nettali nee na rek mooy yàlla dama faa yóbbu ngir teral ma waaye loolu dana feeñ bu baax a baax ci ni sëñ bi nekkee gànnaar dana feeñ bu baax a baax it ci ni ko waa gànnaar jàppe woon sabab yi bi mu jàllee xam ngeen ne dañ koy tënk bu baax a baax sëñ bi nekk na fa jaar na fa ci ay béréb yu bari créé na fa ay école yu wuute école bu xam-xam école u alxuraan daaray alxuraan naa tudde ko naa ko tudde daara daaray xam-xam daaray alxuraan masalan daaray tarbiya beneen façon xeetu daara boo xam ne fa la ko njëkk a defee mooy daaray kaamil ji ngeen xam mooy wàccukaayu alxuraan taalif na fa lu bari euh, def na fa lu baree bari loo xam ne sax day mel ne boo ko dajale woon léeg-léegi ngir nga ne def na ko faneen bari na bind na fa taalif na fa defar def na fa ay fatwa bindante na ak ñoom ay leera ay ay leetar yàlla may na ko fa may yu mag lool bokk na ci wérdul maaxuus wi nga xam ne tey ci la yoonu murit amee li ñuy wax istiqlaal nga xam ne du jëfandikoo waneen wérd wérd la woo xam ne ci sëñ bi la tàmbali yam ci sëñ bi foofu la ko jëlee ci gànnaar kon day mel ne may yam fa am bari na mooy école la boo xamante ni ci école yi gën a riche ci école yi sëriñ bi ci la bokk li ko gën a tegtale rek mooy ña fa nekk ay nit ñu baax lañ ay jullit lañ gis nga gabon ci nettali sëñ bi da nga gis mu koy melal naan suuf su doy fu kenn musta jaamoo yàlla waaye nag gànnaar gis nga bu koy melal ak day ñu baax la leen di tudde al abraar as saalixuun ardu saalixiin ñu tedd ñi surafa ñooñu rek leen di tudde kon nag xam ngeen ne ñaari étape yooyu dana mën a wute fu ñu baax nekk 100 pour cent ak suuf soo xam ne day mel ne danaan kenn mosu fa su jotal yàlla mënta wute nañ moo tax ñoom bindkat yi Mauritaniens yi dañu wax ne euh, yàlla subhaanahu wa taala dafa jëflanteeg noon yi muy tubaab yi ci sa ci safaanu liñ bëggoon ci sëñ bi waaye bu ñu xamoon li koy fekki gànnaar nee na wóor na leen ne duñ ko fa yóbbu wax naa leen ne jàngee na ci ñoom xam-xam ci ku bokk ci banu daymaan donte sax du ci Mauritanie fii la ci Njaañ wax naa leen ne jël na seen werd wérd yëpp njëkk na faa jël wérdul xaadir wérdul xaadir wu jóge ci Cheikh Sidil Muxtaar Kunti ca moom nag mu jaare woon ko ci Cheikh Sidiya Cheikh Sidiyal Kabir jaaree ko ci jaar ci doomam Cheikh Sidi Mouhamad ba ba muy ñëw Cheikh Sidi Baba mi nga xam ne moo gënoon a jamonoonteeg sëñ bi sëñ bi mi ngi ko jële woon ci ay kilifaam bàyyi taxam suñ sàmba tukkuloor ka moo ko joxoon képp ko jox Mamour seli Sali nekk noonu ba tey ci nijaayam sëriñ bu soobee kon xam ngeen ne day mel ne nekk na ab taalibe foofa loolu man ngaa sukkandikoo xam ci ne bokk na ci lu tubaab yi bëggoon a sukkandikoo ba yóbbu ko fa ndax xam nga ne foo ma nekk lu mel noonu moom jàpp naa ne boo fa nekkee Euh, da nga tal laneen lu dul nekk di fa fés da nga tal laneen lu dul mbooloo di la fa topp donte nag safaan bi mooy li nga xamante ni moo am mooy nam fa kawe ëpp na bi nga xamante ni mi ngi dem ba jéggi géej gi ba jéggi yoon yu bay dem Cheikh naa ibnu Dada mi mu àndaloon moo koy nettali muy lu yéemu man jàpp naa ne ki moo ko njëkk a nettali Cheikh naa moo ko nettali ku dunda tudd nag ku ñu daan wax Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abu Madian nee na biñ génnee ba jéggi eh, dex gi nga xamante ni jukk lañ ko daan wooyee ñoom booba ba dem nee na biñ génnee rek bay dem tàmbalee dox nee na ci la kiimtaan yi fekk nee na sëñ bi li mu wax ak moom ci yoon yu bariwut tooñ na ko rek ne ko seex naa yow de mën ngaa maslaa ni nga doon waxee tubaab bi ci bureau ba day metti na ci kaf la ko waxee nag ree ko ree yu metti bokk na ci lim ko waxee nee na bi ñu dem béréb bu ñu romb boo xamante nii rek bu rafet na nee na danaan ko cheikh naa taxaw leen booba ñoo bokk giléem ñu nekk bu taxawee mu ne ko fii de beeñ bi ni mu rafete ni mu maasee jaadu na ñu war fee jox yàlla njukkal ko fi mooy nañ fi taxaw julli fa ñaar rakka cheikh naa nee na loolu jaaxal leen lool ndax xam ngay day guddal yoon wi ñaari béréb yuñ daw maanaam bu ñaari kilomètres yuñ taxaw rek mu ne ko taxawal suuf su set si nañ fi jaamu jaadu nañu jaamu fi yàlla wàcc julli fay ay rakka cheikh naa day nettali ma moo koy wax nee na ñu mujj def yëfi naar xool yoon woo xamante ni xëy na melut noonu jaarale ko fa ndax nag nee na bu ko defutoon moom bu soobee yàlla fañ jëm moom daañ fa yeex àgg lool ndax foofa dëgg yàkkamte woon nañ daal bi nga xamante ni dem na fi njëkk a nekk tintu muxsin fa njëkk a nekk nekkaat na ci ay béréb yu bari yoo xam ne soriwu ko bu bakkaay adabaay da ngay gis sëñ bi di ko tudd ci leetar yi af tuut tanameeru ak fu siiw foo xamante ni nekk na fa muy sarsaara sarsaara siiw na lool ndax xew-xew yu mag a mag yu fa xew ak feneen fu siiw fu ñax jaraariya nekk na fa siiw na lool ndax doy na sëkk xew-xew yu fa am ca sëñ bi moo ko tuddal boppam ci ay mbindam nekki noonu ba tey ak fu siiw foo xamee ne jàpp naa ne ñu baree bare ci ñi fi toog tey seen maam fekkoon na fa sëñ bi muy xumaag ca ñoom ñu gën koo xam ci muraya wala sax watul ma état yooyu yi mooy yi gën a ràññeeku ci yim jaar ñu xam ne it gànnaar sëñ bi dem na fa lu bari xëy na yoonu mujj wi siiw na lool waaye loolu xëjut ci waxtaan wi ndax da koy jaxase waaye bu ngeen ba ngeen ko beral waneen yoon mooy yoon yi sëñ bi dem gànnaar ak yoon wu ci nekk la fa def jàpp naa ne rek ñun gis nañ lu ëpp ñett yoon yoo xam ne dem na ko fa ca bu ci nekk am nañ preuve luy tegtale loo xam ne mbindam lay doon li ci gën a bari wala boog tegtal mooy loo xam ne mën nga koo làmbu teg ci sa loxo kon dem na fa ay yoon yoon donte nag dem gu mujj gi nga xam ne moo amoon juin 1903 te mu jóge fa 1907 mooy li ci gën a siiw waaye dem na fa ay yoon. Tintu Muxsin yàgg na fa nekk na fa ab diir yàgg gi nag jubluwuma ay at wala yooyu waaye am na fa ab diir bokk na ca la fa xew bari na am na xew-xew bu metti boo xam ne neexut a waxtaane ci mbooloo mooy rek ku jógoon ngir bëggoon ci sëñ bi loo xam ne du lu baax waaye yàlla musal ci sëñ bi mooy ku ñëwoon rek. jàpp ne taalibe la ndekete woo xam naa ay noonu ko yebaloon ngir mu bëgg koo faat waaye yàlla dogalu ko foofa ci tintu moxsin la xewoon bo sëñ Masamba Diop Sam bokk na ci ña fa nekkoon ak sëñ bi sunu maam sëñ ma baabu Guèye bokk na ci ña nekkoon ak sëñ bi ak ñu baree bari ñoo fa nekkoon boole ceeg nag ñi mu àndaloon dem fa wax naa leen léegi ne sëñ Mat Jaw Paxa bokkoon na ci ñi nga xam ne àndal nañu dangay gis ñenn ñi naar bu mos di way sëñ ma baabu Guèye da nga ci xamee ne gànnaar la woon ma baabu miftaaxu xayrin inda gànnaari fii tuntu muxzina mahfuzin min annaari ak eh, yeneen yoo xamante ni dana koy tegtalee ab diir la fa nekk booba kër Cheikh Sidi la doon àndal waaye xam nga naar yi ak nit ñi tuxoo déplacement yu bari xaw a dis ci moom tax na ba mujj day mel ne loolu amatut ci la tàmbali nag nekk fu bari dem na Sarsara Sarsara jàpp leen ne ci état bi gën a mag la ci dunduk sëñ bi étape bu am solo fatx gu mag a mag sëñ bi ah, daana ko am fu nekk waaye am na ko foofa doy na sëkk lii nga xamante ni mooy wërdu murit wërdul maaxuus foofa la ko sëriñ bi jote fa la ko njëkk jote boog laa wax dëgg la jotaat na benn séexa boo xam ne jaraar ya la ko amee waaye nag wërdu wi nga xam ne mooy kaamil wala nga di ko tutti akmal ñenn ñi sarsaara la ko amee woon ci koor ga xam ne moom la fa njëkk a woor nee nañ du soreek guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor gi ci mujj koor gi Euh, fa la ko jote muy may gu màgg lool ci moom daanañ wax ne euh, bi mu ko solo jële yàlla jox ko ko mu jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ki mu ko njëkke binduloo jàpp ci Sénégal yi nag tax may wax yaakaar naa sunu waajuru baax woo sëriñ am sotu jaxate la waaye xam ngeen ne fa la ko tàmbalee joxe bi nga xamante ni dem nañ ba kori ba kori gi am juróomi fan ci la ko tàmbalee génne di ko joxe sat wérdu woowu di lu am solo bokk ci yi nga xam ne yàlla moo ko may Serigne Touba xam ngeen ne bu lu ko jiitu daana jëfandikoo wérdu wu nekk jëfandikoo wérdu alxaadiriya loolu nga xam ne mooy cosaan ci ñun booba al wérdu achadali nee nañ mi ngi ko jëlee ci waa kër baaba wul wuldu xamdi ba ci sax ñenn ñi ne wérdu tijaani yi jàpp ne foofu la ko jëlee jàpp déggaat naa ginnaaw bi wérdu asidiqiya fa la nekk lu siiw a siiw la xam ngeen ne wérdu Chazali yi dafa bari ay baam xaas waaye dafa mel ne ñu bari ci ñoom ku ci nekk rek nee na bi mu ci yore sëñ bi jëfandikoo na ko waaye da nga gis lu koy tegtale ndax bi mu jël wérdu Chazali yi ca nekkoon ci waa kër Cheikh Babou du xam di siyaare ji woon leen yàgg fa lool ci la waye woon xasidaam googu nga xam ne xëy na tasaaroo wut fii lool waaye da ci doon tawassul ci juróom-ñaari wàll yoo xam ne jamono jooju foofu lañ nekkoon xasida la gu am solo tasaaroo lool mi ngi ko tàmbalee ci. wasilati ilayka yaa aliyu bi sabaatin kulluhumu waliyu dem na banaan fa bi xabibillaahi an ji jismiya min xumma wa min xalanji dem na bay wax ak naasiru diin xam ngeen nañu xam histoire xam ñu ku siiwlu ku fa nekkoon banaan wa naasiru diini bihi antasiru wa ala al ida wa zallati tukaffar da nga ci déggee ne xëy na jamono jooju sëñ bi àndoon naag lu mel ne ay yi baaxoo gàllankoor yaram muy ay wéradi wala yu mel noonu ndax day mel ne juróom-ñaari wàll yooyu ku ci nekk buy tawasul ci yow rek dana ci feeñal dana ci tuddaale ñaan yàlla tàggale ko feebar wala yu mel noonu waaye loolu rek fi ma bëgg a indi foofu rek mooy jël na werdu Chazali ya ci jamono yi nga xam ne nekkoon na ci ñoom ci jamono jooju ci la waye way yi nga xam ne moom laa doon wax nii léegi sarsaara bi nga xamante ni yàlla jox na ko werdu wi werdu wi nga xam ne maa ngi ci soññi sama bopp cay ñaan murid yi fonk ko bu baax a baax ndax xéewal la gu jóge ci suñu borom euh, li sëñ bi yàlla may ko ci xéewal yu bari jox ko ko tànnal ko lépp tànnal ko suuf si mu ko joxee fi sëñ bi tuddeel boppam ardu saalihin fa la ko yàlla joxe tànnal ko it euh, dëkk bu mu ko ko joxe muy gànnaar googu mu tudde ardu saalihin tànnal ko it weer wu mu ko ko joxe muy koor xam ngeen ne weeru koor moo gën ci weer yi tànnal ko it fan yi mu ko ko jox muy fukki fan yi mujj ci koor gi gis ngeen ak bis boobu ñu wax ne ci la ko jox muy ñaar fan ak juróom-ñaar xam ngeen ne borom xam-xam yu bare bari jàpp nañ ne laytul xadri ci bis boobu la kon day mel ne wér du maaxus bu du toon dara yi dañuy wax ne li ci dajee rek ci ay jagle war naa tax it nag ab murit war koo fonk surtout nag nag bi ñu ci amee ndigalul sëñ bi amaat ci it ndigalul ñi nga xamante ni ñoo ko fi nekkal ci ginnaawam sëriñ bi yor ko dajale woon taalibe yi booba waa Cheikh Ahmad ibnul bind na ne moom la ko sëñ bi njëkk a jox ca foofa xam naa ci mbokki murtaniyee yi Ahmad jox ko ko wax ko ci lu bari doomam mas na maa wane ijaaza bi ko ci sëñ bi defaloon wax ju am solo ku gis mbind mi li yaalama alwaqif ala hada almarsum an al abd alqadim siiqa lahu su'lu min alqadim ata muridahu saadiq al izna fi axsi wa isticmaal al ba leetar bi jeex mooy ku gis lii na nga xam ne jox naa sama taalibi bi wérdi wi ak wax la nekk ci wérdi wi sëñ bi joxe ko wax sart yi sart yi wax li ci nekk lépp wax njariñ yi bokk na ci nee na ku koy jëfandikoo ab jullit piir ngay doon ndax mu'min muslim muhsin waxoon mbokki taaliba yi fa nekk jamono yooyu ne leen ku ko mën a booleeg wirdi wi nga yoroon xam ngeen ne booba lu ko jiitu ku ci nekk ak wirdi wi nga yoroon ndax sëñ bi daana def ku ci nekk léeg-léegi wirdi wi nga yor mu bàyyee la ko léegi-léegi mu jox la ci ndigal ndax xam ngeen ne sëñ am na ndigal ci kilifa yëpp machaayixi sayiduna al jaylani wa shadili ahmad tijani ñëpp am nay ndigal seen wër daana ko joxee ni ñu koy joxee nee na kon ku ko mën a boole nga boole ko waaye nag ku ko mënta ñàkk boole nag kon na nga yem ci sama wérdu wi ndax nag jàpp naa ne nag ki nga jaayanteel boo demee ba mënoo ñàkk jëfandikoo wérd na nga yem kon ci wérdam ahmad ibnul hasan leeral na bu baax wérdu wi taalif na ci dalilu man raama dalil an wérdi cheikhin al jalil wax na lépp sart yi yi ci aju yëpp yiñ ci sopp liñ ci war a def lépp kon nag ab murid na jël wérdu wi ca jël ku ci ndigal ku yore ndigal li am ndigalul joxe ko waaye nag bu koy jëfandikoo it nag na dem jàngi fiqu wérdu bi mooy na dem jàngi xam-xam bi ci aju moo moo lay dimbali nag xam li ci aju liñ ci sopp li ciy farata lii tegg ni loolu nag li koy mottali la bokk waaye lu am solo la góor dana ko jëfandikoo jigéen dana ko jëfandikoo xanaa rek ñuy bàyyi xel ci ne wérd jigéen bu tënku goo xam ne am na borom kër wala yu mel noonu nay laaj ndigal nag boroom këram ndax nag man duub wérd cosaan li am na doole waaye ngeen xam ne mën duub la rek nag ci sharia mooy ci daraja jooju lay gën a tollool moo tax nag ku koy def it am ci ndigal boo tënkoo na nga ci am ndigal ka nga xam ne moo la tënk ca xam ngeen li fuqaha ay di wax nit ki jigéen bu wooree kooru ngatt nga na tàggu borom këram bala koo def te buñ ko waxee foofu nag defe naa di def la leen bokk na ci loolu dama ko cee dugal rek ci fiq wérdu yi xam naa baax na ci sarsaara fatx gu mag sëñ bi am na ko fa bokk na ci ña ko fa fekk bari na ñam fa nekk noonu ci taalibe yi tuddal naa leen mag ñu bare bare fekk nañ ko fa euh, di ko lim dana xaw a jafe ndax daanaka rek li mu leen wax léegi bari nañu fi teew seen maam demoon na Sarsara wala demoon na xumaag xam ngeen Cheikh Ahmadul Kabir Mbay te ñun ñu gën koo xam mooy bàyyi sunu baay bi Baay Galo Mbay daa nañ wax ne sëñ bi yónne woon na ko téere mu jëlee ko Sénégal xam xëy na Daaru Marnaan waaye foofu la ko fekkoon tuddal naa leen léegi sëñ am sotu jaxate ak mag ñu baree baree bari nekk na nañ fa sëñ Mbàkke Buso fekk na ko fa sëñ Masamba Kanni Bousso niki noonu mag yu baree baree bari nekk nañoo ak sëñ Touba Sarsara ñooñu ma tuddoon léegi sëñ Baara Faati Mbooj sëñ Baara Xarijang jàppal ne rek mag ñëpp nekk nañ ko fa sëñ Ibrahima Fari Mbàkke sëñ ibra Fari li tax ma tudd ko ndax kaamil bi sëñ bi tàmbali woon sëñ koy jàng ba ci jumaa ji mooy ki ko sëñ bi njëkk a digal mu koy jiite ca xumaak sëñ Moor Penda Mbàkke niki noonu xam ngeen ne xew-xew bu rëy rëy xewoon na ci moom ndax sëñ bi yónni si na ko Sénégal muy dellu si ay ñu doy waar dogale ko ba tax na fitna ju méttee métti fekkoon ko ci bañ gaañoon ko gaañ gaañ bu méttee méttee métti ngir rek li ko sëñ bi yónni bëgg na koo andi ca ñooña bëggoon nañ koo dogale ca booba loolu xew woon mooy ñiy dogale nit ñi ci yoon yi bari woon nañ loolu sax danañ leen wax léegi ne bokk na ci sabab yi gënoon a tax ñu baree bari sonnoon ci ñaanal fexe ba sëñ bi dellu si Sénégal ndax dëkk ba neex na ci moom méttiwut nit ñi fonk nañ ko waaye nag jafe-jafe amoon na ci dugg ca dëkk ba ak dikkaat kon daal fatxa gu mag a mag am na ci Sarsara waa kër Cheikh Ahmad ibnul Hasan ñooñu noonu lañ fonke wird wi noonu lañ koy joxee ba léegi noonu lañ koy joxee it ci sart yi bari nañ lool famille bu mag a mag lañ boo xam ne li leen boole ak sëñ Touba yàgg na mos naa leen koo laaj ñu ne seen baay bi ñu daan wax Hasan moo mose ñëw Sénégal bi wër bu yàgg a yàgg ñëwoon dëkk bu ñuy wax affaire man tur bi sax damaa defoon amut waaye xam naa ne am na ndax dégg naa ci rajo bi nit wax ba tudd tur dëkk bi soriwut lool xam naa ne it nee na dégg na sëñ Touba booba sëñ Touba ngi Touba xam nga yàgg na mooy xam naa jamono yi mu koy sànc xëy na booba sëñ bi dafa mel ne li mu waxee Daaru Xuddoos la ko fekk xam nee na ci fekk na ko muy julli mu topp ci ginnaawam di julli ba mu noppee jóg di ko nuyu xam nga rek li taalibe bi baaxoo def ñu bëgg ko téye waaye rek sëñ bi dafa fonkoon naar yi ne bàyyi leen ko bi mu ñëwee nuyu ko waaye bi mu ko nuyoo sëñ bi téye ci loxo bi ne ko baa xam nga ne jàpp naa la jàppee naa la soppe xam nga loolu doy na waar ci ku naru na tere nee na xasan loolu def ko jël euh, ndeysaan ne ko lii nga ma wax de bu ma sañoon nga bind ko ciw kayit jox ma sëñ bi yemut ci bind ko ciw kayit waaye dafa way masala mooma ne arju lazi minhu yaatil fawzu wal minanu an laa ba ma tarjuhu yaa xasanu waalam bi an annaka xillun lii wa annaka laa yansaaka fillaahi min ni sir wal alanu yow yaakaar naa ci yàlla ne li nga yaakaar yàlla boo ko bu mu tas na nga xam ne sama xarit nga rek ñaanal ko ñaan yu ree jël téere ba doomam sëtam nee na ma dafa da daan takk xam nga da nga gis naa yu takk téere yu baat digle woon na bu fi faatoo ñu dencaale ko téere boobu day mel ne kon secret boobu sëñ bi teeloon a gis seen bàyyi looloo waral buñ nee la doomam moo njëkk a jël wérde wi loolu du la jaaxal sëñ bi jox ko ñu baree bari doy na sëkk sëñ bi fonk gum fonk wérd wi yónnee woon na jox ko magam Mamor Jaara kenn ci suñu kilifa yi di ku ñu jege daana ñu wax ne ni wax na ñu bari ne leen nusxa bi sëñ bi joxoon Mamor Jaara de mi moom dëgg la nag gisuñ ko wala boo gisuma ko waaye eh, xam naa ne du ñàkk mi ngeeg ku ko war da nga ko gis loolu sëñ bi fonk na ko Mamor Jaara mooy magam jàpp naa ne ku koy jege moo la gën a jege waaye sëñ bi joxoon na ko wérd daa ngeen dégg ñu ne sëñ Mbàkke Bousso benn ci yoon wu mu demoon Murtani Mamor Jaara mos na ko wax ne ko mooy lii ñëpp baaxoo laaj léegi ne ko boo demee neel sëñ bi wirdi wi da jot naa ci maa ngi koy jëfandikoo waaye wuute yi waar bis ma gis xam naa seex yu wuute yi rek xam naa loola wax ne ko daal jaaxal na ma ne ko na ma xam naa di ko ci laaj xalaat loolu dégg naa ko ci nit ku ma doy ne Mamor Jaara mos na ko yónnee yóbbante sëñ Mbàkke Bousso boobu mi ngi jëm si woon gànnaar ne ko boo demee na ma leeral lool sëñ bi niki noonu ba tey sarsaara fatxo yi fa am bari na banu daymaan ñi nga xam ne ñu tedd lañ woon sëñ Tuubaa fonk leen lool doy na sëkk misaal ñooy xeet wi nga xam ne sëñ Tuubaa day am na doomam ju tudd seenu tur muy Cheikh Mouhamadul Jadaali menn mi ngeen di dégg dëgg la mën na fee bañ a fekkanteeg sëñ bi waaye sëñ Tuubaa boole na ko ci ay sëriñam boole na ko ci ay kilifam sëñ Touba liggéeyal na ko lu bari gis ngeen téereem bi ñu wax xaatimatu tasawuf moom la sëriñ Touba woy muy masaalikul jinaan ak leneen lu bare bari li ko sëñ bi liggéeyal ci téere yu bari téereem bi ñu wax zahabu ibris sëñ Touba yoroon na ko day mel ne mu àllfaat Cheikh Mamadou Yadaali yëpp rek sëñ Touba jëfandikoo na ko boo demee masaalikul jinaan leer na lool ndeysaan dem na ba ci biir ngir fonk Yadaali gis nga lam wax laallani ujza gadan bil xusna ma al yadaali fi l maqaril asna mooy lii wax ba àggal ne ndax yàlla may ma bu ëllëgee ajjana maag Cheikh Mamadou Yadaali mi nga xam ne moo doon cosaan li moo tax Cheikh Mamadou Fadel ci pastéefam bi euh, barkeeloowaat loolu xam ngeen ne Mouhamadul Yadaali euh, moo taxit mu amaat ko moom it xam naa ne day barkeeloo loolu nga xamante ni sëriñ bu mag bi defoon na ko loolu doy na sëkk fonk na leen banu deymaan ñooy xeet wi jàngal sëñ bi it dara ci xam-xam amut faneen ñoom jàngal nañ sëñ Tuubaa dara ci xam-xam mantiq lu mel ne balaaxa lu mel ne usul lenn ci mutamimaat yi jàngal nañ ko ko ñi gën a am doole ci banu deymaan bari nañ waaye bokk na ci waaye famille Cheikh Mamadul Jadaali boobu te li ci gën a yéemu mooy ñëpp ci ñoom jamono jooju ci lañ jaayanteeg sëñ bi ci Sarsaara mbooloo lañ mu bari sëñ bi séddale leen di tudd seeni tur dana xaw a bari ñii mu jëmale leen di leen jàngaleloo alxuraan ñii mu leen di jàngaleloo jàngaloo xasaayit kon sëñ bi daana jàngalu xasaayit xam naa ñu neex baat lañ ñii mu leen di bindaloo alxuraan ñenn ñi mu leen di bindaloo waat taalifa yi nga xam ne yor na ko xam ngeen ne sëñ Touba taalifa mi daana ko bindul waat lu bare bari gis ngeen kataba yi sëñ Mad Lamin Jóob Dagana dana koy way waaye bindkat yooyu fu nekk état bi yëpp sëñ bi amoon na ko mooy état bi mu nekkoon ak nit yëpp muy fépp rek njaareem gànnaar googu ba tey bindkat yooyu ñooñu bokkoon nañ ci lenn ci njabootu Cheikh Modou Yadaali sëñ bi dana koy junj ci xasida goo xam ne da nga ci xamee ne gànnaar sarsaara ñëpp fekk nañ ko fa waaye nag surtout waa kër waa banu daymaan hamdi wa shukri li man kulli bihi saara lahu ridan duuna suxtin inda sarsaara lahu sanaa'i wa ridwaani bila saxatin musqadali min bani daymaana ansaara lillahi kulli ladaa abaari makrumatin min hartaxal naa wa fiha jama man zaara inna allazina Euh, wax na def naa wax naa léegi ne musqaadali min bani daymaan ansaara xam ngeen ne loolu kon tegtale ci ne ne waa banu daymaan ansaar yi nag mooy ñoo ñu ko fa toppoon kilifa yu mag topp nañ ko Cheikh Sidi Ahmad ñu baree bari daal ci borom xam yi ci foofa lañ ko fekkoon jaayanteeg moom di jëfandikook moom wérdu wa sarsaara muy fu tedd sëñ bi nekk na fa jóge na fa nekk na fu ñuy wax jaraariya jaraariya suuf la soo xam ne jege na lool ak fi ma nekkoon maag ñu bari ci bokk yi fa nekkoon muy nabaaxiya alawi yu ni ñoo fa nekkoon sëñ bi nekk na fa rek ci li ko yóbbu woon sarsaara moo ko fa yóbbu suñu borom donte ci zahir si mën naa niru leen waaye ndigalu suñu borom moo ko fa yóbbu biir jaraari yee la tudd ba léegi si jaraar yee la tudd sëñ bi tuddee woon ko biirul xayr xad jaa anil xayru min rabbi bi takraari la siyama inda biiril xayri jaraari biirul xayr sëñ bi moo xam li muy tekki mooy teenu yiw donte nag alawi yuun ya fa dëkk ñoom nee nañ li mu tekki mooy sëñ bi xaritam bam mu fa fekkoon te mu bokkoon ci tariqa tijaaniya Cheikh Ahmad bun Beddi foofu lañ ko denc xëy na ñoom nee nañ loolu moo tax sëñ bi loolu la ci doon junju jaraar ya sëñ bi am na fay may yu bari moo ko li boppam nee na yàlla may na ma ay may fu nekk waaye surtout bi ma nekkee biirul xayri bokk na ci may yoo xam ne ñun gis nañ ko mën nañ koo teewil bopp bokk na ci wérdul maaxus wi nga xam ne mooy xafif foofu la ko jëlee ak yeneen ak yeneen ak loo xam ne xew na fa la fa xewoon la ci gën a ràññiku mooy digganteem ak famille tijaaniya boobu ñi gënoon a màgg ci yoonu tijaan tarixa tijaaniya cheikh ahmad bun beddi cheikh ahmad bun cheikh mahamadul xaafis cañ leen daan wooyee jamono yooyu a cheykhaan a cheykhaan ci seen istilaax mooy man na ak abba man na mooy cheikh ahmad bun cheikh mahamadul xaafis abba mooy ahmad beddi sëñ bi fonkoon leen lool boo dee seetlu day mel ne ñoom la gënoon a fonk ci ñëpp sëñ Saaliw muy fonkoon na leen lool bu mosaa gis kum jàpp ne xam nga fa dara ku mel ne man dalay ñoom la lay njëkk fi muy tàmbalee mooy bay di leen sëñ bi waxoon séq nañoo ak sëñ bi lu bari daanañ abalantey téere sëñ bi mos naa bëgg téere bi ñu wax Mawaahibu Ladunniya ñoom ñoo ko joxoon ba léegi ci tey na baax yeegee boo fa demee seen bibliothèque benn bibliothèque bu fa nekk ab téere nga fa dañ naan la nekk na diir bu yàgg yàgg ci loxol sëñ Touba abbu na leen ko ginnaaw bi mu delloo leen ko seen xarit la lool lool lool fonkoon na cheikh ahmad ibn cheikh ahmad al xaafis moomu bokk na ci lum fonke woon sëñ bi lool kilifa la woon gu mag mos naa wax sëriñ tuubaa ne ko boo gisatee yonente bi nag ma ko nuyul xam ngeen ne loolu euh, reconnaître nit ak dara jaal ko tëskiya fi la mën a yem mooy yow da nga gis yonente bi loolu rek la nga ci gën a mën a déggee sëñ tuubaa tontu ko tontu ko ci lu am solo ay bayit bayit yooyu bokk na ci li nga xam ne nee naa leen mosuma gis sëñ saaliwu donte sax mu mujjam laa ëpp lu ma ko daan gis ma nuyu ko ca téyewu ma taril ma bayt yooyu alayka sallama allazi qad qaddamak ala ashirika wa ala qadamak alayka sallama allazi la yantahi ruqiyuhu li ma ili yashtahi mooy sëñ bi dana ko yonente bi nga doon nuyu lu mi ngi lay nuyu yonente bi la yëkkati mi ngi la doon nuyu ak yonente bi nga xam ne rek daal moo gën ci yow kudut moom mu ngi lay dolloo ab nuyoo loolu xam ngeen rey na lool seere foofu la mën a yem moo tax Cheikh Ba sunu sëriñ boobu li muy wax ne yàlla bokk na ci lim jagleel murtani mooy kenn contre ko fa loolu tegtal la ci ndax ñooñu kilifa la woon yu mag bokkoon ci tarixa ya waaye jëlale naa contre ko waaye day mal ne bu fekkee ne fi ñu ko tegoon da ngay jàpp ne rek murit ya fa nekkoon jamono yooyu teguñ ko fa sëñ bi fonk na ko lool way na ko sax xasiida di ko ci ñaanal arjul sa altu rabbi lazi axna an sababi bil mustafa man kafaani mujibat tababi li cheikh ahmada fawzan bil muna abadan fii ma zakartuhu naa xurran bila sababi xasida gu gudd a gudd goo xam ne da ko ci ñaanal ak yeneen yu bare bare bare yoo xamante ne doxoon na seen diggante ngir loolu taxoon na ba sëñ bi jàppoon cheikh ahmad bun beddi moomu tax na ba bi mu fi jógee mu ne tey jii ci gën ci kaw suuf faatu na yonent bi sallallahu alayhi ak jibril wàcc nañ ngir teral ruwam googu waaye nag lim ci teg moo ëpp moo gën a yéemu lépp mooy cheikh ahmad moomu li ko may loolu de mooy rafet njortu gi nga xamante nii rek euh, rafetoon na ko ci man xam ngeen loolu kon daraja foofu la gën a mën a kawee niki noonu nekk na sarsaara jaraariya ak bët dëkk dëkkaan yim jaar ba mujj fi nga xamante ni mooy xumaag xumaag day mel ne nag mooy daara ji kenn ci njabootu sëñ bi kon da nga ci xamee ne foofa yaatu woon na lenn ci njaboot gi ña nga fa woon soxna Astu Gaawaan Mbàkke mi di ku baax gane na fa jamono ci xissa yu siiw a siiw yoo xamante ne yu ci xewoon du neex a wax ci biir mbooloo waaye kii maan la dal ak ganeem jamono ca foofu la amee woon kenn ci taalibeem it sëñ Moxtaar Jaxate di rakkoon sëñ Bay Jaxate génn na fa àdduna ñu denc ko fa ci armeel yu siiw yu fa nekk ñil fa yi ñoom dañuy jàpp ne sax denc nañ fa ñeneen waaye xam naa kooku rek da cee gën a ràññiku daara yi amoon na fa sëñ bi jàngale na fa alxuraan waxaale wuñ ko xam-xam nippi noonu bu ngeen gisee ñi jege woon sëñ bi ca mënoon a bind ci moom bind nañ lu baree bare ku mel ne sëñ Maxtaar Bintaloo bind na lu baree bari tadwin na ko loo xamante ni foofa la xewe woon foofa ci gànnaar taxawal na fa lu nekk jàkka ji daa nga dégg ab naar Abdoulaye wula ay bii ne moom la fa tegoon bu fay naafi la daaray kaamil yi nga xam ne fi la ñu wàccee alxuraan ca loolu di sunna soo xam ne mi ngi wéy ba léegi ca moo xam leen léegi ne sëñ Ibrahima Fari Mbàkke nekk na fa jàngkati xasaayit yoo xam ne daanañ ko jàng waajur bu baax a baax sëñ Mor Kuna Mbàkke bokkoon ci ñi ko jiite suñ waneen waajur sëñ Afiya Buso ak ñeneen bokkoon ca ña ko doon jàppale ci jéem yooyu amee woon na foofa ak ñeneen nag mag ñoo xamante ni fekk nañ ko fa jàppal ne rek ñi ëpp solo ci mag ñi ci niveau yu wuute mooy ñi nga xam ne mag nañ lool ay rakkam masalan lenn ci njabootam sëñ Cheikh Mahamadul Moustapha Cheikh Mahamadul Fadil Cheikh Mahamadul Bachir da nga gis borom xam-xam bu ñuy wax Mouhamad Yaxya Dubu ci téeréem bi ñuy wax Rexlat ilal Hajj Euh, bokk na ci li wax ci biir ne jaxasoo woon naa ak sëñ Touba jàngal naa lenn ci ak njabootam daan ne surtout ku mel ne Mouhamadul Bachir da nga ciy dégg ne xay lenn ci luxa xëy na jàngal na it lenn ci ay magam mooy kon ñoom nekkoon nañ foofu mbokkam yi niki noonu doomi sëñ bu soobee yi ñu si bari ña nga foon euh, niki noonu ba tey ñu baree bari fekk nañ ko fa di ko ziare si ci mag ñi nga xamante ni ñoo fa nekkoon ci lu yàgg lool ba ci sax loo xamante ni ba mu bëgg a jóge daa ngeen dégg yoon wu siiw woo xam ne sëñ Afee Ñang mel mii suñu maam dem na fa fekk ko fa ci àndoon ak suñ beneen mbokk sëñ Abdou Dia Doyoli daa ngeen dégg it ñu mujj ñooñu sax ñoo xamante ni fekk nañ ko foofa sëñ moor Kayre ak ñu baree bare kon day mel ne eh, xumaag saxwatul ma moo doonoon étape bi nga xam ne moo mujj nga xam ne autorisation bi nga xam ne moo ko jëlee Mauritanie ca maam Ibrahima Fall andil ko ko xumaag googu la ko fekk ànd ak moom ñibbi waaye loolu xumaag la xewe woon lu baree bare bare xew na fa moo tax. ñu baree bari sax ci ñun murid yi dañuy dañ naan la gànnaar dañuy jàpp ne rek mooy xumaag sama maam demoon na xumaag sama maam loolu rek lañu lay wax ndax dafa gën a yàgg euh, xam nga doy na kenn ci njaboot gi feeñe fa jamono doy sëkk kenn am ñu génn àdduna ñu fa denc kon da nga ci xamee ne xumaag yàgg na kiimaan la woon lool xumaag suuf su tedd la woon suuf su bari ndox ak dex lu mel ni ak dex dafa amoon dexu Gorakis lañ koy wax ba léegi da ngay dégg Mouhamad Abdoulaye wul Fafa bi mi way sëñ bi ca di ko melal junj ne ko ne dexu xumaag gi dex bu rëy la woon lu nee fa daan génne daanaka wax ne ko dexu xumaag gi di neex na lool ci la waa Murtani surtout waa Trarza wilaya Trarza di dunde waaye yow yaa gën ci ñun dexu xumaag ndax dexu xumaag ndox la ñuy jox ca yow xaalis nga ñuy jox te xam nga ne xaalis moo gën ndox xasidi ku gudd a gudd dem na ba naan ko ka annaka war rakiisu rakiis mooy xumaag rek ka annaka war rakiisu huna sawaun laa yudra li ayyukum al wurudu fa aksaru faydatihi in faada maaun wa anta aqallu faydatika nuqudu di xasida gu siiw a siiw mi ngi tàmbalee ci ilayka al awdu ana ana ana iidu wa iidun mislu iidika laa yaudu ka at dem na banaan ka annaka wa rakiisu huna sawaun laa yudra li ayikum al wurudu fa aksaru faydatihi in faada maaun wa anta aqallu faydatika nuquudun sëñ bi lim taalif ci muritani bari na ku ko indi dana bari muqaddimatul amdaax téere yu baree bari am na yoo xam ne sax da ko taalif ñëw ba agsi fa defaraat ko fa mooy baamtuwaat ko fa waaye xutba korek tabaski bi ngeen gis te sunu imaam ji sëñ Modou Mamoun di ko jàng korek tabaski bi ci Touba ak dëkk yu bari ci dëkk murid yi yooyu foofu la ko taalifee ak xasida yu baree bari waaye xam ngeen ne wakaana xaqan fa la ko taalifee ci taalifeen wii wu yéemu Abdullahi wala ay moom may nettali léegi day li ne géntoon na sëñ bi jox ko lu mel noonu xasida goo xam ne da koo tënk ci wakaana xaqan alay naa nasrul muminin waaye lu yéemu ba mu xëyee sëñ bi jox ko xasida googu génn ko mu tooy jox ko ko ne ko am mi ngi nii xam ngeen ne loolu lu yéemoo yéemu la loolu dana feeñ bu baax a baax jàpp dañuy wax ne it ñoom naar yi ne sekkara ci xasida boobu booba jafe yi bari woon na mooy ñi ñuy dogale ci yoonu di leen faat bari na wax naa leen sëñ Mor Penda saam léegi sëñ bi day mal ne kon da cee defaale woon kaaraange ak yu mel noonu xam ngeen ne feeñ na ci li ko sëñ bi tënke wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin fastajaaba lahum rabbuhum defe naa falaa ta'lamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an taalif na lu bare bare def na fa fatawaa yu bare bare ci Mauritanie ngir ma tënk ko fatawaa yi bokk na ci masalatul ma'iya boo xam ne amoon na bu metti li nga xamante ni mooy ma'iyatullahi li xalqihi xam nga yàlla wax na ci alxuraan ne wa huwa ma'akum aynama kuntum loolu lan lay tekki ñi gàtt xam-xam am nuñ ko tekkee nu xaw a xat ñu mel ni man ba mu indi woon wax ju baree baree bari ba lenn ci boroom xam-xam yi tag fii ron mooy tuumaaloon ñeneen ak bokkaale ci ne boo tekkee yàlla ne maa moog yow a nekk yeneen bokk fu ngeen mën a toog indi woon na wax yu bari sëñ bi taalifoon na fa fatwa mooy fatwa almaiya jamono jooja rek la woon na problème ci jaar-jaari sëñ bi daana wax ne li tee mu taalif téere bu mag ci sëñ bi jamono yi mu ko bëggee taalif dafa dajeeg Cheikh Mamadul Bachir di taalif minanul baaxil xadim sëñ Basiru mooy doomi sëriñam moo tax nag mu bàyyee ko loolu xam naa loolu daana ko wax ku baax a baax la daana wax ne bokk na ci li dox digganteem ak sëñ bi ci karaama bari na lool bopp Cheikh Abdoulaye Dieye mi ngeen daan dégg mooy sëriñam kookoo ko joxoon wérd daana wax ne bokk na ci karaama yi dox digganteem ak sëñ bi bi mu dundee lu yàgg ci mënta am doom dafa ñëw ci sëñ bi di ko ñaan ñaanloo ne ko dama bëgg am doom sëñ bi tooñ ko ne ko xulu du llaaha aw du rahman loolu rek la ko wax Cheikh Sidi Ahmadou Lusmu nee naa ñaari doom la am ci àdduna kenn ki abdullah la tudd kenn ki abdurahman day mel ne sëñ bi ba mu koy wax tawriya da cee amoon mooy li mu ko doon wax ci kaw gi mooy demal ñaan yàlla waaye nag ci biir gi li mu ko doon wax li muy tegtale mooy ñaan ko yàlla bokk na ci Muhammad ibn Ishaq Omar ku jege woon sëñ Tuubaa la xaritam woon taalibeem la woon waaye fonk na ko tarbiyewu na ko bindal na ko kaamil yu baree bare baree bari bokk na ci kaamil bu ko mos a bindal sëñ bi faye woon ko àjjana ne ko da nga dugg àjjana loolu nañu rafet njort ci kon ne ku bindal sëñ Touba ku ko liggéeyal da dem àjjana nee na moo ko rakkam bindal nañ ko kaamil andil ko ko sëñ bi tooñ ko ne ko xam nga sëñ bi ku ko mosaa bindal kaamil day jóg taxaw daal ne marhaban bi xaamili kitaabillah neew na ku ko fa mosa bindal kaamil ca joxu la dara neena nag yoon boobu mu ñëw moo ko rakkam njooju bindal ko kaamil sëñ bi ne ko lu ma leen di faye kooku ne ko xoolal loo ñu tànnal sëñ bi ne ko tànnal naa leen àjjana ak sarak jooju kon insha allahu taala àjjana ngeen di dem yéen ñaar way ko xad ishtaraytu minkuma ma bi'tuma bima ladaykuma yakunu mu'tama xad ishtaraytuhu bi an takuna fi jannatil firdawsi xaalidina kon loolu bokk na ci li gën a mag ci liggéeyal sëñ bi niki noonu ba tey ñoom ñu gën siiw ci ñoom xam naa moom laay tëjee ci borom xam-xam yi nekk foofu way nañ ko dëgg la nag ay way kenn du ko wax lu dul kilifa ga ko way mooy liñ ko way bari na waaye dañ ci tànn ñaar ak ñett ñenn ñi way yi kiimaane la lool waaye ñooñu daraja jañ am a tax nga xam ne duñ ko way rek ngir mu neen noonu Cheikh Sidiya Baba ibnu Cheikh Sidi Mouhamad ibnu Cheikh Sidiya xam ngeen ne ku jege woon sëñ bi la fonkoon na ko lool bi mu nekkee gànnaar moom moo fi njëkk a jóge sëñ bi ay ñeenti at xëy na du ko sori ay 1922 du ko sori bi mu fi jógee bi mu déggee ñu ne sëñ bi defar na jumaa ci njaareem teggoon na ko way yu neex way sëñ bi way yu siiw yooyu masjidu cheikhi jaamiul barakaati wa mahalul xayraati wa rahmaati way na sëñ bi lool way yu baree bari alcheikhu ahmadu nicmatun awlaaha haadi alxalaayiqu kulluha mawlaaha fa alhamdulilahi alladi naamaahu la yastatiu way jeex misaal na sëñ bi ak i bokkam muy waa kër maam waranta sëli waa kër maam li ali xabibillaahi majdun wa sudadun wa fadlun tarifun kulla xiina wa mutladu gazaahu bi fiali alxayri jaddun wa walidun dem na ba naan wa maa minhum illaa humaamun wasajidun mooy sañ bi de baax na waaye na ngeen bàyyi xel ne famille bi mu bokkit ñëpp rek ñu baax lañ niki noonu ba tey ci alawi yoon yi Mouhamad defe naa wax naa ko léegi ci biir wax ji way na sëñ bi lu baree bare am na xasidaam goo xam ne siiw na lool neex lool da ciy way sëñ bi raaya la tafarraqatil amwaalu minka shazar mazar banaanuka laa tuqi wa kafuki laa tazar fa lillaahi ma afnathu kafuka bil asa min armalatin unsa wa min armalin zakat xasida gu gudd a gudd taxasat jufuumun minka juuxuha wala quluban kaana at xaamil xajar nee na bi mu ko waxee sëñ bi sëñ bi da ko ree ne ko abshir bi raa in ne ko xasida gi rawiya bi raa la raa defe naa mooy juróom-benn fukk waaye incha allah dinaa la jox juróom-benn fukk ci ay dërëm xam ngeen Cheikh Ahmad wul Ahmasi nekkoon borom xam-xam bu mag xaati mbokk ci ñëppoon xam sëñ Touba joxoon na ko wërd maaxuus ginnaaw bi nga xamante ni yor na moom wërdul xaadir yi moom ku fonkoon sëñ bi la bi fi sëñ bi jógee sax daana def nee nañ at mu jot mu ñëw siyaare si barab bi sëñ bi bu ko mosaa jox alal daawu ko jël moo daan wax sëñ bi naan ko de yoruma alal jum la jo ju ma jox waaye na la wóor ne fonk naa la fonk goo xam ne maay gën a kawe ci yow incha allah ku la jox alal in lam uqaddim danaa niiran mudan naratan walam uqaddim hadaaya alxayli wal ibili narju min allahi fadlan an yu ba yuballigani bil xubbi maa lam yakun bil maali lam yunali nit ki noonu ba tey Mouhamad Lamine al Busaadi yi nga xam ne li gën a yéemu dafa wayoon sëñ bi ba waye indi fa ay wax ndax lenn ci borom xam-xam dañ ne lii kenn waru koo askane la doomu aadama dëgg la sax nag ña ko doon kirite gi xam naa seenu njàng moo soriwut waaye ndax dañuy wax ne kirite gi moom ku la ko dàq xamal ne njàngam soriwut ndax li dagan bari na lool liñ mën a taawil bari na li nit mën a wax mu tekki dara bari waaye moo tax bokk na ci màndargam néew xam-xam bari critique loolu moom mat naa xam xasida gu neex bu mu woyoon sëñ Tuuba ilayka wa illa fa najaibu fii taab xadima allazi bi xullatihi kaab alawtal wara kaaban wa xajjuuka kaabatan wa min kulli waadin yansiluuna wa min xadab fa lil xajji miiqaatun wa xajjuka daaimun wa laysa ila shahray jumaada wala rajab ba xasida gi jeex ci la ko yenn ci borom xam-xam yi ne woon nag li mu wax na ndax àgg na ci ne ko aj de am na miixa waaye yow sax aj day continuer yemut ci ñaari weer ak ñaari fan ak yu mel noonu ala kulli xaal dafa mel ne waxtu wi jeex na wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh firnde woo ci dund gi nga ko dund moo waral leer gi ndax joxeen wi daji dajiy feeñ du lu nit ki di nettali nii rek ngir di ko nettali waaye lu nekk fi moom la nga xam ne bu koy wax danga nga yëg ne day wax nii rek loo xamante ne da koo dund ba noppi loolu nekk lu wér loolu itam lu am solo la waxtaan niñ ko sàkkoo woon eh, defe na ko nu kawe njort ndax ci fàttali ñi ngi jublu woon a ay bind ci nekk gi sëriñ bu mag bi nekkoon gànnaar ak xew-xew ya fa xew yan lañ ca mën a mu mel ne ci njëlbeen leeral nañu kañ la fa dem ci jëm boppam ndax booy waxtaanee nekkug nit fi barab day am solo lool nga wax kañ la fa dem euh, mu mel ne weeru juin trois la leeral ne fa la ca la fa dem mooy ay weer yu néew ginnaaw bu mu bàyyikoo ci tukkib géej gi ndax mi ngi dellu si woon novembre 1902 boo ci tegee ay weer yu néew rek da egg ca juin ñu jëlee waat ko fii fi daarul minan daaru mannaan yóbbu ko gànnaar bu waxee taarix boobu itam war na am lu tax mu dem lu tax mu dem fa leeral na itam ñaari sabab yoo xam ne moo tax ñu jëlee ko fii yóbbu ko gànnaar sabab yooyu wax na ne am na sababu biir am sababu bitti sababu biir gi leeral na ko ba mu leer nañ ñi du jar dellusiwaat siwaat sababu bitti gi itam noonu sababu biir gi mooy li ci sëñ bi wax wane ne li wuutale diggante demu géej gi ak yóbbu giñ ko yóbbu gànnaar te mu bokk te muy lenn ci tukkib jéeri ji wuute nañ ndax bële dafa dem ngir di ay nattu am fa waaye bii dafee da dafa yàlla dog fa digal mu dem fa ngir fay ko baax du wax dan najaza loolu leeral na ko ci ci ci ci ci ci ñetti bayit yooyu nga xamante ne ma nga tàmbalee ci man zanna bi mu leeralee sabab yooyu itam ci yoon wi leeral na fa la fa xew mu nga xam daa bokk ci baaxu sëriñ bi fépp foo xamante ne barab la boo xamante ne barab bu neex a jaamu yàlla bu fa eggee jaamu yàlla loolu leeral na ko bi mu eggee itam mbooleem barab yam fa sax nekk fa wax na ko tudd na barab ya tudd ñam fa jëflanteel ak la fa xew ba ni mu eggee fi nga xamante ne fi la mujjee nekk ca gànnaar te mooy xumaag te ñu bari eh, xam ko te di ko tudd lu baree bari foofu itam wax na ko wax ñu la fa xew tudd na itam mag ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon jaayante ànd ak sëriñ bi di nekk ca liggéey ba benn mbir rek damay faral di wax ne benn mbir rek war naa tax ñu dëggal ne tukki gànnaar bi ak fay la ci sëñ bi te bale nekkum nattu mooy wéet gëm wéetoon fële rek fële wéet gëm fu wéetoon ba egg ci di seedaloo cant gi mu cant yàlla ay malaayka laka shukru wa ridwaanu minni wa shahidi raqibun atidun fil jazirati maa yobba nga xam lu muy def moo koy defal boppam amul kenn ku koy jàppale ci lenn foofu wéet gëm fu wéetoon rek loolu rek doy nam nattu bu ne yàlla damaa fayee tukki bii tukki fay la ñam fa nekkaloon te ñu te ñu te ñu nekk ci léppam nekk ci ay waawam di ko wé nekk wéttalam loolu rek doyoon na sëkk doy na sëkk ci firndeel ne tukki bii ak tukki bale wóotu nañ bee am natt la bii ak fay la nga jëlaat yeneen yi nga xam ne wax na ko tudd na ko te muy luy firndeel ne tukki bii ak fay la lam yekku sayru ak sasin si waa loolu li koy firndeel daa bëri wala wax li fii ramadaana na jaza te wax na ko te muy junju alwerdul manqus ak yeneen yu ñu ci mën a jël yu bëri tukki bii daal waxtaanee ko waxtu wu nekk day am solo te si laa am na lu mu ci junju mooy diggante sëñ bi ak Mauritanie bokkut ak tukki bii nga xam ne moom dafaa dem nekk fa muy 1903 ba 1912 ba mu ñibbi ba mu ñibbisiwaat bu fekkee ne bu fekkee ne juum ma ci juum ma ci date 1907 ba mu fay jógewaat kon euh, loolu loolu yooyu lu am solo la euh, ñu ngi sant bu baax ci waxtaan wi xëy na waxtaane waat tukki yi nga xamante ne tukki na ko fa ak jëflante yi mu jëflante ak Mauritanie yi yaakaar naa loolu du ñàkk ñu jël ci yeneen jotaay waxtaan ci yeneen waxtaan yoo xamante ne xëy na dana gën a am solo lool dañoo bëgg a jeexal jataay bi yëkkati ko balaa ñuy julli timis te am na yeneen kàddu yu fi war a jàll kon damay wax rek ñi nga xamante ne ñooy délégation yi nga xamante ne ñoo fi teew te ma ko doon junju ci ci njëlbeen na wax ne jataay bii dañ koy yaatal woo ci ñu bari ñi nga xam ne ñoom lañ séqal liggéey yi ñoom lañ séqal tool bi te ñu nekk ci yeneen waar di fa bay ñu leen di woo ñu ñëw teewe si jataay bi ngir ngir seede ko ak yenn ci kilifa yi nga xamante ne dañ leen woo ngeen ñu sedd si liggéey bi eh, kon damay wax ñi nga xamante ne xëy na teew nañ ci jotaay bi ci ak tënk rek bu ko defee daa di jo jébbal kàddu gi ñi nga xamante ne ñooy waa comité bi nga xamante ne ñooy saytu màggal gi ñoom la ko sëñ bi dénk ci sëriñ Bassirou mu simple xaadir jiite leen am daayira bi tamit day jëflante ñoom te waxtaan wi itam at mu jot da koy séq da koy bokk ak ñoom ñoom la ci àndal lëkkaloo ci ak ñoom dañ leen jox kàddu euh, danañ jox itam kàddu sëriñ Afia Bousso al imam mi nga xam ne moo jiitee daayira muxaddamatul xidma mu sant mbooleem ñi nga xamante ne ñoo ñëw jàpp ci liggéey bi waaye itam leeral lenn ci li nga xamante ne ñi mu àndal di liggéey Sëriñ Tuubaa ci daayira muxaddamatul xidma ñu ngi koy ànd ak ñoom di liggéey waa sulamul wusul sëriñ xaadim Bousso mu sëriñ Njaaña teew na fi waa masalikul jinaan sëriñ Jili Bousso Abdul Wadood ak sëriñ Saaliw ak mbooleem ñi mu àndal teew nañ fi waa Matlabul Fawzayni sëriñ Moustapha Silla teew na fi waa Rabitatul Madarisil Quraniya sëriñ Xaadi Jaxate teew na fi kuréel liggéeyal ku tedd ki sëriñ Cheikh Fallou Tahir ak sëriñ Cheikh Lo sëñ Sambu Sa Abdourahman eh, sëñ Sambu Sa Abdoul Wadod ak mbokk yi nga xamante ne ñoom la bokkandal teew nañ fi Al Azhar eh, directeur ba di sëriñ Ahmadou Samb al Oustaz teew na fi comité d'organisation màggal Touba ak sëñ Mourtala Bousso Abdoul Wadod eh, teew na fi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal waa xidmatul xadim teew nañ fi eh, sëriñ moodu Diop ak ñi mu àndal waa asaabul jannati maam jaara bu sëriñ Bousso sëriñ Basiiru Bousso moom sëñ Mbàkke Kanni eh, teew na fi eh, mi ngi ni sama wet waa quratul ayni sëñ Aboo Mbàkke moom sëñ Modou Habib teew na fi ak ñi mu àndal waa académie daaru daaru salaam sëriñ Xadim Silla al oustaz teew na fi ahibaul xadim sëñ Moustapha Bachir Lo teew na fi ànd ak délégation bu mag boo xamante ne mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo jiite mboolem lijaan yi ànd na ñoom ñu teew ci jotaay bi waa saabul waa xisbu eh, tarqiya ñoom itam teew nañ fi ci eh, Serigne lemin Fall moo leen fi teewal waa mu assasatu saqaafiya lil usratil musubiya eh, seen président Serigne Alxaaji Fàllu Buso Ñanga teew na fi alwafa bu daarul moxti Serigne Modou Kara moom Serigne Bachiru Anta Ñang yàlla na fi yàgg te wér moom teew na fi moo leen seewal bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi dellu di am mbégte mu rëy di leen nuyu ci barab bu tedd bii ñu leen baaxoo nuyoo at mu jot ci waxtu wii ci bés bu tedd bii nga xam ne daairatu muqaddamatul xidma baaxoo na di ko taxawal di ko waajale màggalu Tuuba te yàgg koo def lool jàpp naa ne lu ñaar fukki at ak ñett walla ñeent mi ngi nii mu di ko amal ba yàlla defee ñu dox ba kuréel gii di comité d'organisation màggal Tuubaa gi juddu tàmbali di taxawal ay yu mel nii jël bis bi boole ko ci ay bisi boppam yi nga xam ne daf koo fonk lool di ko waajale màggal gi di ko ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma kon mu nekk bis boo xam ne cosaan la ci daayira bi waaye bi comité bi juddoo nag ñu di jël ko jébbal leen ko ànd kook ñoom di ko waajale màggal gi ci ndigalul sëriñ bi ci biir loolu nag ñu di leen nuyu ci turu sëriñ Afia Bousso bi nga xam ne mooy njiitul daairatu muxaddamatul xidma ak mbooleem waa daairatu muxaddamatul xidma bureau bi yëpp ak membre yi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di sant bu baax Euh, waa comité d'organisation bi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci liggéey bu tedd bii di ko tàmbalee ci ka ca bopp ba di cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikh Abdoul Khadir ak commission culturelle bi nga xam ne mooy taxawu liggéey bii di ka ko jiite di sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma ak daairatul Rawda Yaahin bi nga xam ne Serigne Ahmadul yi moom Cheikh Mouhamadul Fadil ñoo ko jiit moo ko jiite dañuy taxawee waxtaan yu demee nii yi nga xam ne yëpp dafa jëm ci màggalu tubaa ci ànd bu rafet bi nga xam ne ànd nañ ko ak daairatu muxaddamatul xidma ba at mu ne ñu ànd taxawal bis bii daan ko def nag guddi ci bayaalu jumaa ji waaye ren nag di ngeen ko xamee ak ni nawet bi ñëwee nii moo tax ñu tànn di ko def ci tàkkusaan gi waaye itam di ko defee fii ci sunu bokk yi nga xam ne ñoo fi taxawal tànt bu am solo bii di waa xisbu tarqiya ci biir loolu ñu di leen gërëm bu baax di leen sant bu baax ci yaatal gi nga xam ne yaatal nañu ko ci barab bu tedd bii ci biir loolu nag ci tënk ginnaaw waxtu bi dafa jege ñuy sant mboolem kilifa yi nga xam ne teew nañu ci jataay bi di ko tàmbalee ci euh, ni ko sëriñ euh, Hamdi Moussa Mbacke waxee léegi sëriñ seex ummi Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadil ak rakkam yu baax yi nga xam ne ñoom la fi nekkal sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir ak sëriñ Ahmadou Rafaa yi ak sëriñ Modou Mbàkke Abdul Wadud ak kilifa yi ñu fi teew yépp bu ñu limee day xaw a jël waxtu wi waaye ñu jéggal ñu bu ñu tuddee ñooñu rek dañuy jàpp ne tudd nañu kilifa yi fi teew yépp di santit ki nga xam ne mën nañoo wax ni ci jataay bi moo fi teewal Cheikh Mouhamadul Muntaxa muy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif dafa mel ne sax ci moom lañu waroona waroon a tàmbalee cant gi ndax Serigne bi nga xam ne moom la fi teewal mooy kilifa gi nga xam ne mooy kilifa yoonu murid bépp ñu ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér. di sant ci turu Serigne Afia ba tey délégation yi nga xam ne teew nañ fi te Serigne Amdi Moustapha tudd leen léegi muy ñi nga xam ne jot naa jaar ci seen i tur ak kum jaarul ci turam ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant maire bu Touba ci seen délégation bu am solo bi nga xam ne teew nañ fi di sant itam mbooleem kuréel yi nga xam ne ñooy kuréelu mu muxaddamatul xidma yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew yu góor ñi ak yu jigéen ñi ci biir réew mi yi nekk biir Touba muy bu góor ñi ak jigéen ñi soxna yu am baax yi nga xam ne ñoom ngeen jàkkaar lool ak ñi nga xam ne xëy na jamono jàtt na leen ba mënuñoo ñëw ndax wàccaayu màggal gi te ñuy ñu am solo ci liggéey bi nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax li ñu ko daan def guddi te guddi neexul a génne ay soxna moo tax ñu daan leen ci jéggal ran nag bi ñu ko defee ci waxtu wi moo tax gis ngeen seen teewaay bi ni mu amee solo ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne ñu am pastef lañ ci liggéey bi te nangu cee sonn ci fànn yépp di sant itam mboolem euh, daayira yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew moo xam Europe la te seen jëwriñ ji koy coordonné di sëriñ Xasan Diop teew na ci jataay bi sëriñ Hamdi Moustapha mii ñu doon wax itam ci seen biir la bokk doon ci jëwriñ yi di doon jàmbaar lool waaye ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne ñu am so ñu am taxawaay la ñu liggéey bi di santit ñi nga xam ne ñoo nekk Amérique di fondation Muqaddamatul Xidma di santit ñi nga xam ne ñoo nekk Afrique te sëriñ euh, Mafari Ndiaye jiite leen ñooñ ñëpp seen i taxawaay am na solo lool waaye di sant nag mboolem daayira yi nga xam ne ñooy liggéey ci biir jumaa ji bu ñu tuddee euh, asxaabul na tudd ci xidmatul xadim day yóbbaale ñépp di sant daayira yi nga xam ne ñooy baaxoo di ànd ak muxaddamatul xidma di liggéey liggéey bu am solo ci màggalu tubaa moo xam ñuy jógee ndakaaru la moo xam ñuy jóge luga la moo xam ñuy jóge Touba Ngoy la moo xam ñuy jógee feneen fu mu mën a doon ci biir réew mi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen jàpp gu am solo gi nga xam ne ñi ngi koy jàpp ci liggéey waxtu wi dafa gàtt ba xoj ñu lool ba ni ñu ko ñu bëggoon a yaatale cant gi xëy na du ko man dee su ko man waaye rek dañuy fàttali mbokki taalibe yi nga xam ne ñooy màggal si ñu bàyyi waat xel barab bi bu baax ni ko sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir waxe ci waajtaayu màggal gi te mooy yokk worma ji wàññi coow li ndax barab bi du barabu coow ku fi ñëw ku nekk danga war a wàcce sa kàddu waaye ku fi ñëw ku nekk itam da war a ànd akuk dal ku fi ñëw ku nekk itam nag war ngaa bàyyi xel barab bi nga nekk ak sëriñ bi nga xam ne yaa ngi ci wetam ba yu baree baree bari nga di ko moytu rawatina nag li xew ci jamono te mooy sinaab yi ak photo yi ak vidéo yi nga xam ne ñu bari dañ koy baaxoo di def di ko tasaare rawatina sax di ko monter ba di ci monte sax ay woy wala am tëgg wala loo xam ne méngoowul ak barab bi nañu bàyyi xel barab bi ñu nekk bàyyi xel li leen tax a jóg bàyyi xel li ñuy wut te te jaar ci yoon wi leen mën a may la nga xam ne moom la ñuy wut te loola weesuwul war ma jox barab bi war ma jamu laaj door fa sàkku nag la nga fay sàkku suñu borom defal la ko loolu daal ci tënk ndax waxtu bu gàtt wi ndax ñu ngi doon di sone timis xam naa yeneen yi ci des du ñàkk ci waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy jublu si danañ ko ci def waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp ci jataay bi bu yàgg bi di euh, yamale foofu kàddu yi di leen wax ne euh, waxtaan yi nga xam ne daayira Muqaddamatul Xidma ñi ngi koy def itam ci biir waajtaayu màggal gi mi ngi wéy di am bii nag mooy bu mag bi nga xam ne ci lañ doon woo ñëpp waaye yeneen yi ci des itam ku koy topp ci tasukaayu xabaar yi lu mel ne euh, bu MK bi nga xam MK TV bi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji danga nga ci mën a jariñu njariñ lu am solo ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala man ittafaqa al arabu bi aminihi qabla risalatihi sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin mbokk yi fi daje ñu ngi leen di nuyu ci nuyu ba gën a tedd ci turu Serigne Bachir Mbacke mu Cheikh Abdoul Khader waaye ci turu Cheikh mu taxa waaye ci turu comité d'organisation Mouride organisation Magalu Touba gi yëpp ci coordinateur Serigne Ousmane Mbacke ak président communication et culture Serigne Cheikh Abdou Mbacke mu Serigne Cheikh Mbacke di am mbégte mu rëy rëy ci jotaay bu tedd bii nga xam ne ni ko Serigne Abdoul Ahad Mbacke Bousso Makhtar waxe sànq jotaay la buñ fi yàgg def lu ëpp ñaar fukki at mu bokk ci jotaay ñuy waajale suñu bis bu tedd bii nga xam ne amuñu lu lu ko ëpp yàlla dogal itam ren jii mu bokk ci benn jotaay ci jotaay yi nga xam ne waa Rawdu Rayaahiin di mbooloo mu am solo moo xam ne Cheikh Saliou Mbacké yàlla na yàlla yokk ay leeram moo ca joxe woon digal muy jotaay boo xam ne muy muy mbooloo moo xam ne lépp lu jëm ci wàllu xam-xam yaatal xam-xam eh, yàq li ak jot li eh, xam-xamu sëriñ bi mu mën a tasaaroo ci àddina bi yëpp muy daahiratu rawdu yaaxiin e sëriñ Ahmadul Badiyu Mbàkke jiite ko ñu defe ko fii tey mu jotaay bu rëy ñu gis ne bokk yëpp ñëpp ànd nañ ko ak e, waa daahiratul muxaddamatul xidma ki nga xam ne moo doon def waxtaan bi moom itam di sëriñ Murtala Boso mu suñu maam sëriñ Boso iliman mu waxtaan fi waxtaan woo xam ne ci yoonu sëriñ bi ci gànnaar ca tàmbali ba ak nekkinam foofa ak ñam fa nekk ak nañ fa nekke woon ak moom ci ñam ña ko fa doon fekki ak ñam àndaloon dem fa ak naar yi ak wàllu wirdul ma xuus nam ci jote ak fam ko jote ak mbooleem mag ñu baax ñu ko daan fekk ñépp ca naar yi ak ñi nga xam ne ay wolof la doon ay taalibe ay taalibeem daan koo fekki bàyyiwu ci dara mu jotaay boo xam ne daal man nañ wax ne tey jii ñu ngi koy defe fii ci wetu ko tedd ki muy jotaay boo xam ne it bu rëy rëy rëy la bokkoon ci jotaay yi nga xam ne dañ koy waajale màggal Tuubaa gi alhamdulilahi rabbil alamina kon ñu ngi ñaan ci daraje Seexul Xadim màggal gii yàlla ñu ci yàlla jàmm ñu defe ni ko Seexul Xadim bëgge te yàlla nañ ci tase ngërëmam di ñaan Cheikh Mamadou Mountakha dundam bii suñu borom def ko muy dund kiimaan te te mu ànd kook ñun te yàlla jàppale ko ci fànn yëpp mu def ko ci sagoom bi barakat Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu 1895 jëf jooju door a am waaye la ko tàmbalee 1889 joojee ba fi ñu ak suñ joti jonni tey ji lenn loo xam ne mën nañ ko askanale jëme ko ci ñu lu nag ñu nitu yàlla koo xam ne kii yàlla rek lay liggéeyal ci yàlla rek la jeex ñi nga xam ne itam ci moom lañu ñu topp tey wéy ci ndigalam di xool ay ay ay tànkam di ca jéem a jaar ñoom ci loola rek la ñu nekk la muy yàgg-yàgg ba li agsi bi mënuñu cee dindi lenn xanaa lu dul ay sos sos nag fi lañ ko fekkoon te fi lañ koy bàyyi waaye nag kii di sëriñ bi moom ku sos jëmale ci moom it du mujj fenn ndax li ñii nga xam ne ñoo sosoon ba jële ko fi tàmbalee ko ci 1889 1895 ba ak ci fii tey dara loo xam ne lii mën nañ ko cee ñuulal wala ñu ko taqatal amul nee na woon borom daarul moxti bi mu ñëwee ci wàcc wàcc ndar nee na kon tubaab yi day ux rek denc luñ ma ko ux ux rek denc luñ ma ko ndax dañ koo gisut ci man lépp loo xam ne luñ mën a luñ mën a feeñal wala luñ mën a wax la lu ne def nañ ko waaye nag ux sax gisuñu ko ci man loolu mënut a am ndax sëriñ bi bi muy dem xam na ne digganteem ak boromu liggéeyali borom rek moo taxoon mooy moo taxoon muy dem ñoom ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom it defe na ñoom dañoo dañoo dañuy wéyal seenu liggéey bopp waaye fekk na booba sëriñ bi ñoom bi ñuy jël bi ñu jëlee sëriñ bi fii nga xam ne ca njëlbeen la ko lañ gënoon a xalaat mooy mu àgg Madagascar waaye bi ñu demee ba ci dikk bi defe nañ ne fu ñu ko fi yemale rek bi ñu weesoo Guinée gi bi ñu weesoo Côte d'Ivoire waar nañ fu ñu ko fi yemale rek doy na ba ñu àggee Gabon nag xëy na foofu mooy fi ne moom la taamu moom ci boppam sëriñ bi ngir liggéeyal fa sëriñ bi loolu moo ko fa moo ko fa bàyyi waaye daal ci kaddu Cheikh Bassir mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéeyu màggalu Touba gi ci ndigalu sëriñ mu Mountakha ñu ñaan yàlla sunu boroom sëriñ mu Mountakha moomu yàlla yàggal ko sunu kanam te ay cëram ndax eh, li ko waroon ci ay kilifaam yëpp def na ko moo tax jàpp nañu ne moom itam li nga xam ne moo war ñi topp ci ginnaawam ñi ngi koy def te te te te di ko wéral ci ginnaawam te di ko ànd moom moo indi suñu jotaay bii tey sëriñ Bassirou mi nag nga xam ne moom la ñu sëriñ Mouhamadul Amine Baara boole loon ñu ànd ak moom ci liggéey ba léegi ñoo ngi seereel jëpp ne man mi fi teew ak ñi ma àndal ñu teew fi ci bokkoon ci liggéey booba léegi ak ñi nga xam ne yeneen itte dab na leen nañu xam ne mbi mi fa mu tegu woon rek foofu lañ ko teg ba léegi ci rek la nekk lépp luy liggéeyal sëriñ dañ koy nun dañ ciy sukkandikoo nun ci ci daaru borom daaru moo tax la mu waxoon ne liggéeyu Serigne Touba jombul ci kenn te kenn du ko weesu loolu rek foofu foofu lañ ko teg boo dégloo ay ay ak njabootam Serigne a Awa la mi ko njëkk a wuutu borom daaru moo tax bañ Serigne Bassirou Anta Niang mi fi nekk tey koo ci déglu ko ne danaa ko fi nekkal Serigne Touba na doon seenum Serigne Touba lu mu santaanee na ngeen ko def loolu rek ci la ñuy xëy ci la ñuy gont mu nekk loo xam ne lii nag bu ñu ko waxee ci ëttub Cheikh Mouhamadul Fadil bii dañ ciy gën a am mbégte am ci gën ci am yaakaar ci ne mbir mi loolu moo xoon ci njëlbeen rek xanaa sos de mooy am waaye kenn mënut def loo xam ne li wala nga wane loo xam ne lii day teggil sëriñ bi yoon wi nga xam ne fi la jaaroon te nun ñi nga xam ne ñoo topp ci sëriñ bi te bëgg ngërëmul sëriñ bi te di ko wut yaakaar naa ne loolu itam buñ ci tegee suñu tànk lu baax rek la ñuy am loolee nag moo indi jataay bii tey ci muxaddamatul xidma ma Khidma euh, tur bi yóbbaale na ko lépp liggéey la boo xam ne bi ñu ngi liggéeyal Serigne Touba ci xam-xam ak ci diine te loolu mooy li nga xam ne moom la yoon bi gën a soxla te yaakaar naa ne itam euh, képp koo xam ne xam nga ne euh, liggéeyal Serigne Touba ci anam gi lañ ko war a gën a mën a defee waaw faaw rek nga bàyyi saxal ci muqaddamatul xidma lii ñu la def ci liggéeyu màggal gi waajale ko màggal gi euh, te at mu nekk ñu di ko def di ci am ay ndam yàlla na yàlla gën a def ñu gën di am ay ndam ci ngërëmu ànd ngërëmul sëriñ Touba li nga xam ne moom la ñuy wut ñoom ñëpp ci waxtu bu nekk ci bés bu nekk lii daal sëriñ bi euh, su fekkee ne euh, mooy li nga xam ne moom nga bëggoon ñu jotalee leen ko mooy jotalee la seenu sag cant yow mi nga xam ne yaa jiite waajtaayu màggal gi jotalee leen Euh, cantuk sëriñ bi sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy liggéeyloo ñëpp waaye nag ak bokk yi nga xam ne ñoo fi ñoo fi teew ñëpp ak ñi nga xam ne bëggoon nañoo teew te teewuñu fi xam nañ ci ñu bare bari ñoo xam ne bu ñu sañoon ànd yow jataay bi ngir lépp wane ne màggal gi fa nga xamee ne fa ko tegoon foofu rek lañ ko teg te noonu rek lañ koy yow kon sëriñ bi noo sant yàlla bu baax bi nga xamee ne boole nañu ci jataay bi boole ci liggéey bi te loolu itam liggéeyal sëriñ Tuubaa lu mu tuuti tuuti tuuti bu ko xeeb ndax bu la ko fayee rek da nga da la nga doon def te lii ngeen def lu rëy la nun kay xanaa nooy wax ne li liñ ci teewee sëriñ bi jox nu ndigal nu ànd koog yéen loola la ñuy wax ne loolu la muy tuut tuut xeeb nañ ko waaye yéen li ngeen def moom abul ab yemul yemul fenn ndax liggéeyal sëriñ Touba la te liggéeyal sëriñ Touba moom amul amul yemukaay waaye nag rafetlu nañu bu baax a baax jataay bi rafetlu liggéey bi nga xam ne moom ngeen ci def ba accès bi te naka jekk nag noonu la daana ma xam naa man tey la ma ci yàlla gën a eh, yàlla dimbali ba mu fekkee tey tëj ci li waaye naka njëkk at mu nekk bu ñu toll danaa yëg njëlbeen gi ak tàmbali gi yëpp nañ koy defee kon sëriñ bi ma la ci wàllu woowu yooyu itam ñaanal yàlla sunu borom liggéey bi ñu teg sa loxo yàlla jokkale eh, ci ay ndam te sàmm la aar la ci lépp loo xam ne luy luy luy gàllankoore la te nga ànd kook ñi nga xam ne ñoom nga bëgg ànd liggéey bi yëpp te lépp di jabootu Serigne Touba maa ngi dellu di fedd li eh, suñu nuyoo ak suñu cant ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañ ci fekk ñoom ñëpp du ma tudd seeni tur ñun ñëpp xam nañu li waaye daal war na suñu xol sedd na ci liggéey bi nga xam ne moom la muqaddamatul xidma di tëj tey jii te ànd kook mboolem jabootu Serigne Touba gi ànd kook mboolem talibé Serigne Touba yi ci njiitu Cheikh Bassir ci mun tax am mi nga xam ne mooy Serigne Touba ci kaw suuf te ñu ñaan yàlla mu may ko kattan ak wér may ko àggale ko yéen ñi nga xam ne moom la bëgg liggéey ci kër Serigne Touba maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan yàlla sunu borom mu may nu waat ko at yu baree baree bari la Cheikh Mamadou lu waxoon borom kër gi ne day e, sunu borom la mayoon sëriñ Touba ca talaata jooje ca Gabon ba tax mu ne e, wahabalil wahab fi tulaasa maa yuxjilul xasrata wa salaasa Cheikh Mamadou Fadil dafa waxoon ne Serigne Touba de loolee que yàlla sunu baram lam mayoon Serigne Touba ca talaata jooju tey jii la ko dàq kon lépp lu mu defal Serigne Touba ba mu agsi tey jii ci ci ci 2022 bi tey jii la ko dàq yàlla na ko yàlla defal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. na ñëpp tàllal